asalaamaaleykum yaakaar naa tey nag dañoo am bés bu mag bés bu rëy yaakaar naa tey ki ñu jàkkaarloo muy suñu chéri di suñu lépp te yaakaar naa di ko xam ne day liggéey ak ñun tey nag ki koy takk nag yaakaar naa su ma tuddee tur bi euh, du ma ne Sénégal mais àdduna yëpp nañ ko muy Karamba borom jinne yi Karamba borom mbuur Karamba équipe euh, sëriñu équipe nationale macha allah tey mooy takk ki nga xam ne mooy soxna fii ci euh, Dakar yaakaar naa nag ma ne Karamba àdduna yëpp xam nañ ko ki nga xam ne tey moo tax Sénégal jël ki nga xam ne mooy coupe du coupe d'Afrique tey mooy euh, sëriñ bi nga xam ne tey moo tax Sénégal euh, qualifié Karamba borom benn bii bi Karamba borom nu metti métti naa dugal benn bii te incha allah damay qualifié kooku mooy Karamba. yaakaar naa na xam nañ ko tey nag muy takk soxna ñu teew fi ñu nga xam ne ay xaritam lañ ay léppam bokk ci communication tey kii nga xam ne moom la jàkkaarloo tam di ko takk tey kii tey yaakaar naa jàpp ci communication ba yàlla def ñoom ñaar ñu bëggante ba sëy dox ci yaakaar naa lii mooy julit dëgg julit boo gisee ko bëgg da koy takk macha allah Karamba dafa wér tey ni jàkkaarloo Sara nag di kenn si Karamba yaakaar naa di liggéey moom yor communication dem ba ci biir macha allah sëy eh, jublu fa yaakaar naa tey lii mbégte la Karamba la kenn kii eh, Sara nag. delloo ziar Idaly. Mhm. nuyu naa leen mhm. allah kontaan naa trop. Mhm. di leen béggee ah, di wax ne ne ah macha allah di wax macha allah di wax sant yàlla. Mhm. ndax lu tax may sant yàlla. Ah, bi nga xamante ni Karamba gis na ma ba ñu bëggante mu takk ma si weeru koor yaakaar na ne du hasard. Mhm. ndax weeru koor ku ne weeru koor xam na ne ay ngeneel la. Mhm. di si ñaan yàlla yàlla daf la ñu si cat may ñu si gudd fan. may ñu si njaboot yu am barke sëy yi ñuy takkee si aras ñu bokk si. ñëpp ñu ko fekkee déwén tamit ñu fekkee waat ko ñëpp. ñëpp am jàmm gudd fan ak liggéey. di kontaan nag. Euh, Sarata macha allah di rek ci ndéggéey di lépp ci ndéggéey yaakaar naa tey ngay liggéey ak Sarata euh, ki nga xam ne mooy Karamba borom jënne yi Karamba euh, sëriñu équipe nationale Karamba borom benn bii bi macha allah mm-hmm. ñëpp teg seen bët àdduna yëpp teg seen bët ngay liggéey moom ci communication am nekk ci nga xam ne chaîne bi nga xam mooy moom lañ tuddee Karamba TV di liggéey lu doy waar macha allah ñu dem ba ci biir yéen ñaar sëy dox seen diggante mbëggal dox seen diggante ngeen def ko en tant que tey nga nekkoon élément Karamba dem ba ci biir sëy seen diggante tey yow ba mu la njëkkee wax sentir na sëy bi euh, nan nga ko yëgee tey ak lan nga waxoon. waaw bi ngay ñëw da nga ñëw si li nga xamante ne tey jii soo ko tuddee yaakaar naa ne àddina bi ñëpp xam nañ ko monde entier ku ne ndéygee rek àddina ñëpp ko xam monde entier kenn dootul naataat de ndéygee soo ne ndéygee rek àddina xam nañ ko. bu mm-hmm. njëkkee foofu waa Karamba tamit fi nga xamante ne maa ndéegee ni njëkk xam muy sama mag bu dëgg yàlla ya ndéegee di def anniversaire am mu ñëw bu mu ñëwee gis nañ fa ma defal ko benn interview ñu dugg après ñu waxtaan mu ne ma dama bëgg ngeen sét ci mu mbuur ma and ak daam and ak ñoom giri fekk fa bobu ma ngi liggéeyé ak ñoom giri mhm. bi ma àndee ak ñoom après ñu liggéey ñu liggéey ba paré sama liggéey neex ko mu ne dama ibé dama am sama chute bop dama bëgg ñu liggéey légui nak biñ commencé liggéey ah tamit yalla li yalla di dogal rek biñ naan maa ngi moom dañaa war a génn ba tey yàlla tudd si say xëy na nee nañ sëy si aras lañ koy takkee yaakaar naa su ko yàlla tudd woon man ak moom yàlla tudd woon génn boobu tamit ñu génn man ak moom léegi ah, avant ñoo xamante avant ma génn ak moom liggéey nañ ba dëgg yàlla liggéey nañ liggéey ba sa yaay bi mu woo ma mu ne ma saaxata danga may liggéey dëgg la ne dama am cofeel si yow mu ne ma ah mu ne ma da am cofeel si man ma ne ko yow xanaa liggéeyu lu ma la nga ne da am cofeel si man parce que Sénégal dafa metti te man jigéen laa tey suñu commencé génn rek wala nit ñi yëg na ne dañuy génn man ak yow rek mun nañu xalaatee fu nekk parce que xel dafa ñaaw. Mhm. te xam nga jigéen rek tamit muy jóge fii Dakar di ko fekk ji. Euh, Mbour te ku ne xam na ni Mbour dafa sori jigéen buy dem di daani foofu doom mais man nekkul man kese may dem dinaa si ànd ak ki nga xamante ne mooy daam. te daam tamit maa ko ne carrément dama bëgg ñu ànd parce que dama gis liggéeyam mu neex ma mhm. ñu bokkul fi ñuy liggéey ma jël ko di liggéeyam ak moom tamit maa koy gërëm di ko sant munoon na ni ah fu ñuy liggéey dafa sori mais teewul soo leen ma liggéeyee li nga leen di fay dama leen koy duubalee te ni mu ko waxee noonu la ko amee dinañu jox ñu lekk dinañ jox ñu naan dinañu jox paas dinañu dëkkal bu baax te teewul si weer bi deewee dinañ ba si benn jour nii bu ma ko waxee ma ne ko ah man na du ma ko nangu parce ndéegay moo tax wax naa ko sax loolu mu ne ma mu daal di reetaan mu ne ma xanaa da ngaa ragal ndéegee mu ne ko non non ma ndéegee dama ko jox cër mais ma ko sama mag la su gisee ne yow moom ci moom nga ma xamante man ak ñëw ba fii di génn su ko déggee te moom doxul si lu ñàkk fayda bu question de ragal suñu waa kër kenn xamee wu leen si ñàkk fayda mu ne ma man dama laa bëgg ma ne ko ah waa baax na ñu commencé génn matul sax ay une semaine bi ñu commencé génn ma ne ko am ah, a seetlu naa ba seetlu daal damaa bëgg fekkee bëgg nga ma nga def fulla mu ne ma ah ma ne ko waa damaa bëgg nga def fulla bu dëgg yàlla bi ma ko ko waxee tamit mu dëggal ko mu ne ma ah ma ne ko waa mu ne ma koo nekk ma ne ko dëgg yàlla sama yaay sama papa mu nekk ñu mm-hmm. mais man ak sama yaay ñoo nekk waxtaan ak sama yaay après mu waxtaan ak samay mag waxtaan ak déggee mi nga xamante ne tey mm-hmm. moo tax bu ma ñëw si anniversaire muy sama mag bu mu gis ma moom it tamit yàqu ci dara mm-hmm. mais affaire bu gaaw daal maanaam moom def ñu sax deux bu hmm. dëgg yàlla liñ naan sëy fu nekk la ko yàlla tëddee def ñu deux mais macha allah ñu gis euh, tey euh, man am na solo sa diggante diggante moog euh, sa soxna soxnaam parce que gis nañ macha allah. jaara ñëw nañ jaara kër moom itam muy ku baax ku ouvert. ku la yaatal. Hmm. seen diggante yéen itam. jaara bu ku baax. Hmm, sama mag bu baax. du ma ne sax sama wujj laa koy jàppee. mag nga koy jàppee dama koy jàppee mag jàppee ko yaay. ndeysaan di ko wax ne ne jour bu ma ñëwee fi nga xamante ni mooy muur aw ma fa mbokk. Mm-hmm. aw ma fa kenn moom laa fa am karamba ak ay mbokk karamba. Mm-hmm. man ñëw naa ba mu nekk sama yaay may jàppee mu ndax sax bu mu xamee ne man ak jëkkëram sax dañu sekk relation bi dëgg yàlla yàggul bi ñu ko xamee rek benn la moom mm-hmm. tamit mu ñëw jàpp ma bay bëgg a bëgg ma jaara damay sol yére salle de bain moom laay sax wallahi azim toujours public am na fa yeneen dus am na fa waaye dafa ne a jigéen nga kaay nga sangoo fi di saloo fi su ma sangoo sax am naa diw am naa lépp mais dafa naan ma diwa ngi nii yéree ngi nii lu mu jënd man ak moom dañ koy nduróole te dara xewul yaakaar naa ne kooku moom su ma ñëwee mbuur ba pare maa ngi dégg ñu ne moom lañ ma moom karama def nañ ay ati te yaakaar naa ne li ma génn karama ba karama takk ma sax moo jaare génn ñu loolu. ñoo gën a diire gën a yàgg mu door ko takk waaye lañ naan sëy jour bu jotee rek day sekk. gis macha allah ñi ngay liggéey loolu muy équipe karamba yaakaar naa xam naa xam nga seen tur ñoom ñëpp tey mhm. def nañ ne comme seen rakk itam comme mag lan ngeen di remercier waa équipe Karamba moom Karamba TV bi presque moo ko yor. Mhm. ak moor moor mhm. fa laa ko fekk mhm. ndax moo doon équipe karamba mu ñëw ñu jox lépp daan mais tamit karamba tamit bu ma ñëwee mu nekk ku baax koo xamante mu ne saarata jigéen la te moom kase moo si jigéen yëkkati naa kara euh, nu mu tuddati euh, seenu karamba teg ko si loxo saarata mhm. bu loolu la def ñu gis allah ñi karamba liggéey lool yaakaar ñoom itam ñi nga xam ne lay liggéey lool ci faj beeg affaire yooyu say xarit ñoom itam ñoom ku da ngay ñoom asan ah ñoom moom. mbër ñoom ñoom mbër. ah sama papa Diop. Diop ñun ñëpp ku lim da ngay jum ak xale jigéen ñi. Mm-hmm. ñoom ah, awa ñoom daal ku lim da ngay jum instant bi mm-hmm. parce que xool dafa sedd ba sooy wax rek da ngay jum. Mm-hmm. di wax ne équipe bi yëpp lim naa leen ku lim da ngay jum. kenn nag bàyyiwuma kenn. kontaan nga daal. kontaan naa lan ngay wax sa dernier mot ci Karamba rek. Ah, ndeysaan ah sama dernier mot ci Karamba. booy wax sa Karamba da ngay xaw a changé tuuti reetaan. ah borom jinne yi borom jinne yi jabaru jinne yi. waaw neef jooni jooni. dama xam ne jinne nga tey. man bu ma amaat. jinne nga ndeysaan. nga ne borom waaw borom jinne yi. borom faj léegi def léegi. léegi léegi. léegi léegi te mu ne waxal ñaata minute. dama li ma li ma gën a neex ci moom li ma gën a li ma li ma ko gën a bëggee. Mhm. mooy day lu muy def danaan su soobee yàlla mhm. te looy def te àndaloog yàlla rek loolu du sotti bu mhm. soobee yàlla sëñ Fallou mhm. te ku jaaxle da ngay woo yàlla woo sëñ Fallou mhm. te ñaan ñooñu rek lay woo Mm-hmm. su loolu weesoo karamba du lekk xaalis jàmbu munoon mm-hmm. na nekkul nag lu mu nekk sama jëkkër moo tax mm-hmm. parce que nit ki balaa nga koo gëm da nga koy gis dañu ànd mu liggéey ma gis avant génn di ba sëy di xew ma gëm ko nag ku mu neex nga gëm parce que Sénégal ku mu neex nga bañ a gëm mais karamba bi nag juuni juuni lay def ndax tey jii mu ngi ne suy liggéey si équipe nationale ak yeneen football ak du équipe nationale kese la yor ay Europe fu nekk dañ leen di liggéeyal mais teewul bu ne benn bii boobu dama koy assuré bu si yàlla àndee bii boobu day dugg sax eh, eh, Sénégal bi ñuy football ak Égypte ba mu neen benn bii bi man mii maa ko defaree interview yi man ne ko ba ah yow benn bii bi lu tax nga choisir ko rek mu ne ma bu sooba yàlla bii boobu day dugg damay fëkk mbaal te maam moom ñoo ànd ba stade mu jël loxoom nag tayle ko mm-hmm. dagg ko ndax lan Sénégal parce que yaakaar naa ne ay sëriñ si bëri nag soo leen joxoon seen paaka wala jaasi mm-hmm. na daggal seen loxo duñ ko def mais teewul dafa jàppale réewam bëgg réewam am ndam moo tax mu def ko mm-hmm. di ko ñaanal yàlla di ko wax ne kontaan na sagal na ma samay kanam bokk sagal na ma si àddina sagal na ma fépp di ko wax yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko gudd fan ak wér gi moom ak ay njabootam moom ak famille mag ak ñëpp ak képp ku si xaj ak man mii di ñëw. kii kii njàkkalal suñu sœur la suñu lépp la yaakaar naa ñu bokk métier bi nag muy Ndeye Gueye macha allah muy borom xol bu rafet macha allah te ku dëggu nag macha allah tey. Euh, bëgg ki nga xam ne mooy famille bëgg yaayam bëgg ñëppam macha allah tey nag dañ ko fekk fii yaakaar naa mu bëgg ki nga xam ne mooy na ay Aïda Thioune mu Serigne Béthio dañ koy nattale saa su ne ak wàllu ku nek xam nako deggom tay ñu fekk muy tak rakam di karamba te sey bi ci mom la joge parce que di karamba di xam ki xam na moy rakam anniversaire na ñewon muy ku baax ndey gay tay nan nga sentir ki nga xam tay yow ya tak ki koy tak muy karamba xam ko tay ba li amé ah, ba ba nga ko yëgee lépp sa la jaar mom la wax nan nga lan nga sentir ak lan ngay wax tey daal maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégal yépp di wax jëri jërëjëf borom ku baax di ñaan sëñ Moutakha yàlla fi yalla mu taxaw di ñaan baay kër borom ma kalimal axlaa

ñeme na sëy parce que sëykat la 14 ans de mariage la def yàlla moo weddi jëkkëram yàlla dafa weddi ci côté boobu ndax yàlla moo def lu ko neex ci jëkkëram waaw looloo waral li mhm. jooy ma ko xamantan laay jooy mhm. man mooy peut-être ku ma jaaxal mhm. comme soo mënee dégg soo amee dégg-dégg dégg mooy ki ma jaaxal mais du kii parce que kii 14 ans la muñ ba 15 ans. Mhm. samay mbokk a ngi kenn du ma bàyyi ma fekk. Mhm. ay bàjjenam a ngi nii mhm. samay rakk a nii. sëykat la dañ naan man sëykat laa. mais kii ma gën a nekk sëykat téeméeri junni baa xam hmm? dañ may wax mais man kii a gën a nekk sëykat kii ba muy sëy boobu xale bu ndaw la te lu ne la daj ci sëyam lu ne la dégg ci sëyam lu ne la gis ci sëyam toog muñ yàlla la ko tax de. yàlla moo ñëw ndogal am. suñu borom def lu ko neex ci dëkk mm-hmm. loolu tax tey lii am man Karamba mooy ku ma jaaxal mais ki moom tiituma ci moom benn yoon. su ma wax loolu laay wax. Karamba tamit nekk sama xarit. Mm-hmm. yàlla boole ñu mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan mhm, pël moo tax ma xam karamba suma benn xarit journaliste bokkul ak pël bi nekk ci làmb ji de beneen soxna suñuy wax pël mhm. moo ma présenté karamba mhm. ma xamante karamba jabaru karamba bëggal ma boppam jabaru karamba tamit dégg naa bi mu ko déggee nekk nit ku baax maam jaara ku baax maam fa demee daf maa dalal karamba nekk nit ku baax a baax a baax a baax ñeme ko ak bu ñu bokk sëñ Fall moo tax ma à sañ bu bëgganteeg sama rak ñu ñëw wax ma ko man leen nañ leen maye ñu sëy parce que ñaari xale bi ñu bëggantee nañ leen maye parce que seytaane dafa dafa dafa xaw a xaw a doy doole may bi am barke ci doole Cheikhul yi ñu nuyu sama fan yëpp ñu nuyu sama sa ñi nga xamante ni tukulóor yi nga xam ne may seen buur ah ñu ñëw tey ci biir séeréer yi ah ñoom ay bàjjanu Sarata nag Sarata Alaaji Mbay mooy bàyyam alaaji mbeng baayam ku ne xam na ko fee ca gunaas ca géejaway ku fay yeew bay ñoom ñoo tax famille booboo tax ñu nekk ay tukulóor yu noble nekk tooroo de sàmbangaari la tooro buru jé barke borom Touba mm. ñu nekk ay tooroo yu gëm seen bokk kenn du leen dégg ci dara doo leen dégg ci dara ñàkk fay famille mbengeen boobu tukulóor yu ñàkk ki ñaan mm-hmm. barke Cheikhul Khadim mm-hmm. Sara maa ngi lay ñaanal sëy bi yàlla na ci yàlla def barke ci loolu Cheikhul Khadim yàlla na ci yàlla def barke yàlla boo gis loo ragal ci sa biir bu sëy man ni ma lay xam naa ni sax ni dama lay dolli rek mais gëmmal tëxal lu wër bul faale bul lijjanti bul toppatoo soo demee jaara ba nga fa fekk mhm. na doon sa xarit doon sa mag mhm. parce que nit ku baax la te dafa muñal karambaan ak tey léegi parce que bu jaaraat muñul woon li yëpp du am jërë ngeen